aoudubillahi min sheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatil ma walaq khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri miqdar azim radiyallahu an ashabi rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ya mat shaykhi uhduri lana baydal mahdari wal ta'ti fi nadratin ta'ti lana bi dhafari ñu ngi ñëw ci suñu euh, xutbatul jumaa ci lettre baay wasaayaay incha allahu taala euh, alhamdulilahi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman alhamdulilahi alwaxidi alladi euh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wasalaatu wasalaamu ala alfatih alxaatimi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu an madadil kainaati wal awalim al ayniya wal xaybiya seydina ahmad ma baad uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dafa wax ne ginnaaw bi mu commencé ci tur yàlla yàlla mi yërëm jaami àddina ak alaaxira mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga te salmal ci moom dégg nga mu sant yàlla mi nga xam ne mooy kenn nga xamante ne jurul kenn kenn jurul ko dégg te amul benn nawle alhamdulilahi alhamdulilahi alwaahidi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan mu julli ci yonent bi mu sëlmal ci moom wasalaatu wasalaam alal faatihil xaatim yonent boobu nga xam ne mooy ubbi te mooy ki mottali te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu ñaan yàlla ngar ma dem nekk ci madadul kainaati ki nga xam ne moo tëbb nekk gi yaa ngi dégg wala awalimul ayniya ak awalim yi nga xamante ne lépp jëmm la wal xëy bi ak yu fàddu yi sayidina ahmad mooy mawlana chamila tidian radiallahu anhu amma baad ginnaaw loolu fa salaamun salimun la laxwa fii wala taathim li axina wa xabibina al mufassir aliyun mu ne wafaqana allahu wa iyaahu lima yuxibu wa yarda wa daawi bi min bi mannihi qulubana almard almarda wa yarzuqana wa iyaahu aafiyatu daarayni wa saadatu daarayni bàyyi mu ne e, nuyoo bu mucc boo xam ne àndut ak caaxaan àndut ak itam benn bakaar jëmee ko ci suñu mbokk ak suñu soppe firikat dégg nga mu mufassir boo xam ne firikat la mooy ali moomu mu ne yal na yàlla dëppale ñu wa faqana allah wa yàlla dëppale ci li nga xamante ne lu bëgg la ak lu mu gërëm moom yàlla subhanahu wa taala mu mu itam wala mu faj ci xéewalam moom yàlla subhaanahu wa taala suñu xol yi jàng yi nga xamante ne eh, ñu gërëm la wa yarzuqanaa mu wërsëgal ñu wa iyaahu ak suñu mbokki taalibi boobu noonu dégg nga aafiyatu daaray ni maanaam aafiyaay addina eh, ak alaaxira dégg nga wa saadatu daaray ni ak mucc texe addina eh, ak alaaxira yàlla mu ne li ci topp nag al ilaam di xam li bi an man qad ataani kitaabu yow sama mbokk Ali sa téere bi nga maanaam sa lettre bi ma bind da nga jot naa ci maa ngi lay xamal na jot naa ci lettre bu tedd boobu noonu waqaftu ala xitaabik assalim mu ne gis naa itam sa mbind mi ak sa wax ji nga xamante ne bu mucc ayib la farixtu bi wusuli kitaabikum farixan da nga mu ne kontaan na itam ci e, àgg ak seen seen seen sa sa mbind mi wala sa lettre bi dégg nga kontaante bu bu bu bu bu rëy dégg nga taw a jaxtu bi himmatuna ilaykum mm, dinaa ci jublu suñu yitte yëpp jëme ko ci yow wa qad jaddatu laka al wird al lazim wal wazifa al maaluma mu ne la sa wird lazim ak sa wazifa bi nga xam wa zikri yowmul ak zikrul jumaa dégg nga bil iznil xaas yi maanaa ci ndigal bu ñu jagleel mina cheikhi radiallahu anhu boo xam ne mu ngi tukki ci Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu waxaan yi an lakka maa ngi lay ndokkeel yow Seydi Ali faqad qaala cheikhuna radiallahu anhu suñu sëriñ Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax na ne man wadaana alayhi taabiuna tahannaa anhu tahannaa minhu képp koo xamante ne jël nañ suñu tampon bi ñu teg ko sa kaw yaa ngi dégg dañ lay ndokkeel radiallahu anhu mu ne liñ jublu ci loolu man axada annal wirda naa la saadatu daara ni képp koo xam ne jël nga wird rek yaa ngi dégg di nga am eh, texe àddina ak alaxira képp ko jël wird di nga am texe àddina ak alaxira fii xiinihi ci saasi wa usika bàyyi ne ko maa ngi lay dénk wa usi nafsi maa ngi dénk sama bopp bi taqwallah ci ragal yàlla fi sirri ci lu nëbb wal jaar ak ci lu feeñ wala istigaali ak yittewoo bihi ci moom taala yaa ngi dégg nga yittewoo yàlla subhaanahu wa taala bi raf di kulli maa si waahu ci nga bàyyi lépp lu duhut moom won ko ginnaaw dégg nga waalam na xam ànd maa si waahu ka saraabin lépp lu duhut yàlla mu ngi mel ni njunax rek yaa ngi dégg ka bi bi dégg nga yaxsibuhu zam'aanu maa an dégg nga xataa idaa jaa lam yajid shay'an mu ne lépp lu yàlla dégg nga euh, mu ngi mel ni njunax rek yaa ngi dégg waaye mu topp koo xam ne dafa mar bay bëgg a dee yaa ngi dégg mu yaakaar ne ndox la dégg nga dina dem ba foofu noonu te du fa fekk dara yaa ngi dégg kon ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel maanaam lépp lu duxul yàlla rek ju nax la loolu la bàyyi bëgg a jàngale mu ne ko yow ali wattaxid rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasilatuka jàppal yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam muy sa bu mag bi noo koy jàppee muy sa wasila bu mag bil iksaari min asalaati alayhi mooy na nga bëril di julli ci moom dégg nga sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga bëri looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga fa inna dalika mu ne ndax loolu wa tariqu dégg nga liman yuridul wusula ila maarifatillahi taala ila maarifatillahi taala dégg nga mu ne ko ndax loolu moom mooy yoon bi nga xamante ne dégg nga ñeel na képp koo xamante ne bëgg nga àgg ci yàlla bëgg nga xam yàlla mu ne di julli ci yonent bi sallallahu moom mooy yoon bi del bëri looy julli ci yoon bi bil axas mu li liñ kiñ gën a jagleel nag ci yoon boobu noonu mooy salaatul fatih li ma awliqa mooy salaatul fatih li ma awliqa parce que salaatul fatih li ma awliqa bàyyi mu ne fa innaha ndax moom salaatul fatih li ma awliq alkanzul aadam moom mooy koom bu mag bi wa sirrul mutalsam mooy mboot bu ñu nëbb bi wa anil maarifil aqwam mooy jëmmi xam bu dëgër bi moom salaatul fatih li ma awliq kon loolu mbokk taal bi yëpp nañ ci bàyyi xel jàpp ci salaatul fatih ngooy ci dégg nga maa ngi dégg benn euh, vidéo Baye Muxtaar Ka mu ciy wax maa ngi leen di dénk salaatul faati dégg nga te ngeen nag te ngeen mooy ci waaw kon nañ mooy ci salaatul faati parce que mooy kanzil adam mooy koom bu mag bi te yàlla bu waxee koom bu mag dégg nga dëgg-dëgg loolu lu rëy la beneen bi mu wax sërul mu talsam mooy mbóot mu ñu nëbb bi sërru bu ñu nëbb bi mooy mooy mooy mooy salaatul faati waaye wa aynil maarifil aqwami moom mooy jëmmi xam bu wér bi dégg nga boo bëggee xam dëgg-dëgg xam da ngay ñëw jàpp ci salaatul faati li maawla fa inna laha maratibun salaasa ndax moom salaatul faati am na ñetti martaba martabatun zahiratun wa batinatun wa batinatul batina am na martaba boo xamante ne zahir la maanaam lu feeñ la ak martaba boo xamante ne batin la lu nëbbu la ak martaba boo xamante ne batinatul batina lu nëbbu la ci ginnaaw nëbbu dégg nga loolu nag lu jar a bàyyi xel la moo tax booy booy booy zikkar salaatul faati اللهم إنا وجعلنا قرب إليك بذكر صلاة الفاتحة ما أغلق بنية مرتبتها الظاهرة وباطنة وباطنة الباطنة loolu nga wax yaa ngi dégg bineti annahu kalaamul qad eh, eh, qadimun comme ba ba ba maqsad bi jeex ni ngeen ko xamee rek yéen sama mbokk eh, majju bi dégg nga mu ne salaatul fatiha na zahir am na baatin am na baatinu baatin itam dégg nga su ko loolu nag su ko defee loolu mu ne wa martabatuha azahira tastaxriqu amalu jamii afraadil kainaati min awalil alami ila axiriha mu ne martaba zahiram bi moom salaatul faati dafay labal dégg nga mboolem jëfu kenn par kenn ci mbindeef yi lu ko commencé fi yàlla bindee àddina bi ba fi àddina bi di jeexee yaa ngi dégg mu ne salaatul faati martabam bi ci zahir dafay jeexal mboolem jëf yooyu dégg nga moo xam jëfu bu baax ak moo xam jëf bu bon yëpp dégg nga daf koy labal moo tax ñu ne salaatul fatihi dafay labal bàkkaar képp ko zikar dégg nga dafay dindi mboolem bàkkaar yi nga xamante ne jàmm bi amoon na ko loolu ñu bàyyi ci xel beneen bi mu ne eh, wa martabatuha al batina mu ne martabaam baatin bi nag moom salaatul fatihi tastaxriqu asraaru butunil aalam de min awaliha ila axiriha dafay labal mboolem asraar yaa ngi dégg asraaru butuunu aalam bi maanaam baatinu aalam bi aalam bi àddina bii mbindeef yëpp seen baatin yëpp dégg nga salaatul faati dafay labal baatinu martabaay salaatul faati daf koy labal yaa ngi dégg lu ko commencé fi mu commencé moom itam ba fi mu jeexee mu ne wa martabatuha baatinatul baatina sirrul aazam alladi huwa gaayatul gaayaat mu ne waaye baatinatul baatina salaatul faati nag dégg nga martabaam mu ne mooy sirru bu mag bi sirru bi gën a mag ci sirru yi dégg nga bi nga xamante ne mooy dayoog dayo dégg nga mooy dayoog dayo lépp lu nit wër yaa ngi dégg foofu la euh, mbir mi yem yaa ngi dégg mooy raayatul raayaat dégg nga mu ne fa alayka bàyyi mu ne maa ngi lay denk yow ali yaa axi yow sama mbokk mi bil iksaari min haadi salaat na nga bëri julli ci yonente boobu salaa salaam ci salaatul fatih radi salaatul fatih li maawla fii saairil awqaati mu ci waxtu yëpp layliya mu ne waxtu yoo nga xamante ne par guddi la wan nahaariya ak waxtu yoo nga xamante ne dégg nga euh, euh, bëccëg la waqad nasaxtuka maa ngi la koy dénk lillaahi ngir yàlla wala azim mu ne ko na nga sax xam su mi atin dégg nga juróomi téeméer euh, min salaatil faati li maa awliq ci salaatil faati li maa awliq baadal ishaay ginnaaw gee yu mujj qabla na balaa ngay nelaw wa misla zalik naka noonu nga def noon fi waxtu sixri ci digg guddi ay 3 heures du yooyu noonu nga defaat noonu wa misla zalik nga defaat noonu itam baada wirdi subhi ginnaaw bi nga wirdee suba dégg nga defaat noonu juróomi téeméer mu ne wal tan wi annaka tusalli alayhi imtisaalan li amri rabbik wa islaalan wa taaziman wa mahabbatan la gayra dalik mu ne boo koy wirde nag mu ne na nga yéene rek dangay julli ci yonent bi salaa salaam ngir da ngay la yàlla digal parce que yàlla moo wax ne inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi man yàlla ak samay malaaka ñu ngi julli ci yonent bi salaa salaam yéen nga xamante ne gëm ma julli leen ci yonent bi dégg nga mu ne boo koy def rek defal imtisaalan li amri rabbik yaa ngi dégg na ko jëfee rek ngir sa ndigalu borom la yaa ngi dégg wa ijlaalan wa taaziman dégg nga te nga màggal ko yaa ngi dégg nga nga nga nga yëkkati ko moom yonente bi salaa sallam wa mahabbatan laa gayra dalik dégg nga wane itam sa mbëggeel ci moom yonente bi salaa sallam moo tax nga julli ci moom salaa alayhi wa sallam mu ne du du leneen lu dul loolu fa inna mu daawamu ala haadihi maanaam képp koo xamante ne sax nga ci lile bil iznil xaas si maanaa ci ndigal bu wér min ahlihi maanaa ci tukkee ci ñoñ bi ñu ñu tariqa bi nga xamante ne am na ndigal bu wér mu jox la ci ndigal bu wér mu ne yaftahu alayhi yàlla dina la ubbi laa muxaalatan ci loo xamante ne àndug caaxaan dara caaxaan bi xawlillahi wa quwwatihi ci pexem yàlla ak kàttanam wa hada al maktub fi hada al kitab wa maa indi min al asraari wa xasbi wa xasbu yaa ngi dégg mu ne lii ma bind nag mooy li nga xamante ne moom mooy secret yi yi nga xamante ne moom laa yor lii ma la bindal daal mooy secret yi nga xamante ne moom laa yor yaa ngi dégg mu ne doy na ma itam te na na la doy waaw doy na ma te doy na la kon nga jàpp salaatul faati li maa wala ndeke mooy secret bi nga xamante ne moom la bàyyi di wax ne doy na ma te na leen doy dégg nga kon nañ ci ngoy moom salaatul faati li maa wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqq jumaatul mubaraka فإن لم يكن تلفي جموعا عوام خامسا تخالف أحكاما وكيف توبخ دائرة الفضل كن فرنمي ورغي قد يا الله ñu la jigil kese la doom si di baram